Dakar nga am info yu leer ci people et sport yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar notre plateforme del déglu del xool internet de Feeling Dakar ñu ngi leen di bu baax bu ngeen gisee ma taxaw nag mooy xaar yàlla xaar yàlla dañu ñëw ci fi nga xamante ne bi mooy kër Cheikhou Kouyaté Cheikhou Kouyaté l'international Cheikhou Kouyaté di euh, euh, joueur Sénégal bu mag boobu nga xamante ne bi macha allah moom itam suba di finaal bi ñu doxantu fii ci koñam xaar yàlla. gis ngeen léegi lañu génn euh, doon wax ak papaam waaye nag fi mu nekk nii dañu fas yéenee nag saafonteeg ñi nga xamante ne ñoo ñu la bokkal koñ ñoo ñu la juddoo ñu la yaroondool Kouyaté nga. laa juddoo fii laa dëkk Cheikhou sunu grand la sunu lan nga ñu mën a wax ci Cheikhou Kouyaté ci ay débéem ci football fii. waaw début Cheikhou Kouyaté nag suñ ciy wax dinañ ci fanaan. Cheikhou Odeya fii la commencé si Assane Ndaw ba âge ñu ngi nekk ay booy ndaw bi dem entraîné ñuy téye saagay di dem di ànd ak ñoom terrain sapeur jugee foofu ñëw tournant fii terrain gan gi jugee foofu dem yoon bi dem yógoo mhm. jaar foofu dem voyage jaar ànd ak lekk ba yàlla def lu muy def tey ba muy ñëwee nii Angleterre yàlla defal ko nag ren mu nekk deuxième fois mu finaalu ñun ñëpp nekk ci ginnaawam nekk ci ginnaaw équipe nationale di ko ñaanal yàlla may ñu ndam li incha allah suba ñu jël coupe yaakaaroon nga ne Cheikh Kouyaté dina doon lii mu doon tey ci football. waaw amoon nañ ci yaakaar bu baax a baax parce que xanaa foo doon dégg cat ba cat ñun ñii di wax ay jour lan tey bu ñu doonee jour grâce à moom la foo doon déglu foo doon dem yedel ngay dégg yedel. parce tur boobu yedel yedel yedel yedel da ngay dem ba jëppal direct la ñu ne la yedel yedel. mooy ban tur. moom la moom ko taamu wooyee di bi taamu booyee nag. waaw yedel lañ doon wooyee lañ ko doon wooyee. gaaw nag flèche di takk numéro 7 bi ci ginnaaw daw di dugal ni mu ko neexee. mais mbaa fàttewul xaritam yi mu doon àndal fii. wax dëgg ba neex yàlla man de saa yu jugee Angleterre ak bu muy nekk Belgique yëpp dina ma woo jox ma sama dàll. waaw ak sama benn copain Pa Cheikh la da woo tamit jox ko ay gants ak ay dàll franchement si kon koo kuy def loolu waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax frère. ki ñu euh, taxawal nii nag kii mooy Souleymane moom itam mook Cheikhou Kouyaté ñoo footballandoo euh, Cheikh euh, Souley ñu ngi lay nuyu. doom day maa ngi lay ziar. lan nga ñu mën a wax ci Cheikhou Kouyaté ay débéem ci football. waaw mais début bi moom bon ñëpp xam nañ ko pour te dire. parce que bon. ayca kii ñu euh, taxawal nii nag kii mooy Souleymane moom itam mook Cheikhou Kouyaté ñoo footballandoo euh, Cheikh euh, Souley ñu ngi lay nuyu. doom day maa ngi lay ziar. lan nga ñu mën a wax ci Cheikhou Kouyaté ay débéem ci football. waaw mais début bi moom bon ñëpp xam nañ ko pour te dire parce que bon li si waay wax. Jibi Ndiaye minime Benjamin Kadé on a joué ensemble tu vois. Mm-hmm. sax xam nga mooy loolu noonu daal parce que bon. mbir mi daal yàlla la daal yàlla lañ mën a ko wax. ban genre joueur la woon. bon mënoon mu mënoon football dix si ñun. ok mënoon football dix si ñun. xam nga rek di yàlla tudd man maa pointe neuf. Ah mënoon football dix Kalidou Daba ba mënoon football stoppeur libéré du moins Matar Kanté mooy latéral jaraaf moom mënoon football. Euh, latéral gauche droite du moins Moutaaru Balde bi ngay dégg moo nekkoon à gauche. kon yow ak Cheikh Kouyaté yéen a bokkoon benn équipe de football. bokk équipe minime Benjamin Cadet ba jusqu'à senior ñu soog a wu. ah bon ah on a nga ne dina egg si fii mu egg si tey ci football. non ñëpp xamoon ko parce que bon saa nekk sax si biir moom lu muy carburé sax ñun ko doon ñun ñii nekkoon ay ay ay sax dañ ko doon gis saa yu yëngalee terrain bi ñëpp jógandoo. loolu ñun xamoon nañ ni vraiment il va il va il va y arriver quoi. mbaa fàttewul ay xaritu démb. non non fàttewuñu vraiment. fàttewuñu parce que bu ñëwee chaque fois ñooy nekk ci suuf yi lay toog. on est toujours ensemble voilà. mënul alors ñuy waajal final bi euh, suba donc ban message ngay lancé. waa ñu ngi koy ñaax rek di ko nag na na daloon bum sa mbooy moom rek xam nga daloon bum sa mbooy moom la woon foo woon rek ak jom ak fulla te xam na ni kat moom ci colonne vertébrale équipe bi la bokk sans moom man gëm naa ni xolal du ma sentir match bi quoi. man gëm naa loolu waaw. am nga confiance fighting bu mu fay wonee xeex bi joxe deretam jaral na ko pour Sénégal am ndam. merci beaucoup Souleymane kontaan naa doom day bëgg ñu Cheikhou Kouyaté gis ngeen déjà koñ bi ni ñu ko décoré ak euh, xaritam yi mu doon àndal ñoom itam ñu ngi taxaw nekk derrière les lions mon frère maa ngi lay nuyu tur bi la. maa lay siyaar di la bëgg bu baax Pape Sembène. Euh, Pape Sembène euh, xam nga Cheikhou Kouyaté parce que ci koñ bi nga dëkk. waaw Cheikh Kouyaté xam nañ ko bu baax ñu ñëw dëkk waaw parce que bu ñu defee lii moom moo waral lii yëpp waaw di kontaan si moom bu baax nag gis nañ lañ ñuy defal ñun waa Xaré Yàlla yi di ko remercier di ko ñaanal yàlla coupe bi. mu ñëw fii ak jàmm parce que nu ñu dëkkee moom jàmm la lañu dëkk ak moom mu ngi ñëw di ñu encouragé boo xoolee esthétique sax yëpp envoyé nañu ko gars yi ñu koy liir di kontaan si moom di bëgg si moom bu baax bu dëgg yàlla waaw kontaan nañ si moom bu baax du dëgg yàlla buñ kontaan si moom duñ taxaw fi tey di ko wax li ñu def ni sax au moins sax moom sax am na lu mu dugal si loxoom jox nañu ko mu ngi def ko suñu jël nañ suñu xaalis moom tam jël na xaalisam jox ñu mu def ko te yàlla tax parce que moom yàlla moo ñu booleef moom ñoo dëkk ñoo foondoo ñoo defandoo lépp waaw suñu xool dafa sedd si moom di ko ñaanal nag ku bii Sénégal ñu ñaan yàlla mu ñu wax jàmm te bu ñëwee jàmm dinañ xam ne ne moom waa xayraat taxaw nañ ko bu baax xaar yàlla Grand Yoff yoon bi juboo ba soos baa ñu kenn ñëpp si jàpp dëgg yàlla tey boo demee ba soos gaa yi ngi foofu di def di bind numéro 8 fu mu toll bi ñu paree léegi nii gaynde bi nañ si bind ngan di numéro 8 fii pour moom parce que ñun moom lañ am moom la ñu am moom la ñuy sagoo di remercier nag doomu ndeyam ku ñuy wax Cheikh Cheikh moom doomu ndeyam la te kontaan nañ si moom moom tam gis nañ taxawaay bi drapeau yi ñu indi nii moo ñu ko indi léegi nii jox ñu ko. waaw xaritam waaw defal na ko lu ne ñun tam dañ koy remercier di kontaan si gestes yi muy def. ñu kenn nag di remercier ay famem ay papam ay yaayam ñëpp ñi ñëpp. si koñ bi lañ juddoo ñoo foowandoo ñoo kafandoo ñoo defandoo lépp ñun daal bu dëgg yàlla suñu xol sedd na. merci beaucoup frère kontaan nañu. jërëjëfati euh, ba tey moom frère tur nan la. maa ngi tudd Serigne Cheikh. Euh, Serigne Cheikh xam nga Cheikhou Kouyaté parce que ci koñ bi nga dëkk. waaw xam naa ko bu baax a baax a baax a baax. lan nga ñu mën a wax si moom ci enfance am. waaw moom mu nekk nit ku modeste. nit ku vraiment ku gëm li muy def. ba pare mën ko. ñu koy encouragé. di ko ñaanal. ndax lii yëpp tey jii drapeau yeeg peinture yëpp moom jàpp na ci daal. jàpp na ci bu baax a baax a baax vraiment. di ko ñaanal carrière di ñaan nag coupe bi fii ñu jëm muy final bi. yàlla may ñu ndam ndam ñu seddu guy mu nekk histoire boo xamante nii bu ñu nee l'enfant de xaar yàlla moom ci la bokk rek loolu defe naa loolu quelque chose la ko ñu koy ñaanal ndam yi yàlla may ko ndam bu seddu guy bu bu waaw bu bu kawee njort daal di kontaan nag ci moom bu baax vraiment ndax doomu ndaayam bi li sama waaj doon wax léegi seex ku ne am nga euh, xarit ma ñoom ñaar seen xarit ànd àndandoo bi maanaam dëgg la quoi rite la yal na leen yàlla gën a jubóole waaw ñu ñu ñu ñu waaw ñu jëm kanam daal yàlla ma ñu ndam lu sedd guy vraiment ñu kontaan continuer c'est le bëggee mon frère jaajëf jaajëfatee Aïcha euh, mon frère maa ngi euh, taxaw ak keneen koo xamante ne moom tamit ci koñ bi lañ ko fekk grand tour bi nan la. man Ablaye Noor Samb laa tudd. Euh, Ablaye Cheikhou Kouyaté lan nga ñu mën a wax si moom. waaw Cheikhou man mën naa wax si moom parce que man dëkk naa ak moom ay at man seen kër man a laa logé woon dëkk naa wala man ay 10 wala 11 ans yooyu man ak moom mu nekk booy bu baax booy bu yëg nit booy bu respecté ay grand frère li ñuy def nii nag équipe nationale yàgg na dem final mais yàgg daawuñ ko woon def bu li yàlla ak moom moo tax vraiment mu nekk booy bu. booy bu booy bu am yar tamit très reconnaissant man mi dëkk naa ay këram ay at bi muy tabax seen kër si laa fa génn dem dëkkiwaat feneen dëkk naa presque dix ans waaw dëkk naa seen kër mu nekk booy bu respecte nit respecté jox cër nit nag waaw lii nag wax joxe lii lii muy def lii ñuy def nii participer si participer si si na bu baax a baax a baax ñu ni jël nañ suñu ay propre moyen même booy ndaw yi nga gis nii ku nekk jox na fukki dërëm wala juróomi dërëm ñu peinture te lii lépp yàlla ak moom moo tax kon nag ñu koy ñaanal coupe bi yàlla yàlla ñëw ak jàmm. kon dafa mel ni fàttewul démb daal si. non jamais non ko waaw man mii xam naa dara parce que dëkk naa ak moom. seen kër locataire laa fa def naa fa 10 ans dëkk naa seen kër. waaw kon man xam am na lu ma xam si moom. waaw vraiment mu nekk booy bu reconnaissant ñu koy ñaanal daal coupe bi yàlla na ñëw ak jàmm bu ñu ko fii xaar yàlla ñu feete ko ñun ak moom waaw loolu la ñaan suñu borom. amin mon frère kontaan nañu jërëjëfati Doudou mi ngi noonu euh, ba tey gis nga fi ma nekk nii donc mooy euh, koñu Cheikhou Kouyaté vraiment euh, ñëpp ñi nga xamante ne bii gis nga leen ñu nekk ci entourage bi donc ñoo Cheikhou ñoo juddoondoo ñoo yaroondoo ñoom itam li ñuy témoigner à chaque fois mooy Cheikhou fàttewu leen mu ngi continuer di def loxoom parce que lii ngay gis nii Cheikhou def na ci loxoom ak xaritam boobu ñuy woowee Cheikh dañuy continuer yaa ngi koñu Cheikhou Kouyaté lan nga ñu mën a wax ci Cheikhou. ah Cheikhou suñu dëkkandoo bu baax la xam nga waaw mu nekk euh, équipe nationale yàgg fa doon gaynde doon champion xam nga gis na lii yëpp moo ko waral xam nga jàpp si final bi mooy loolu quoi depuis démb ba léegi ñu ngi si pentuur nelewuñu xam nga tey bu ñëw ñu takk drapeau yi ak yooyu di ñaanal équipe nationale ndam nag surtout moom di ko ñaanal ndam di ko ñaanal ndam di ko ñaanal ndam. fekkee nga jamono bi Cheikhou di football fi nawetaan. bon fekkee wu ma ko parce que tout la woon waa tout tànk laa woon temps yooyu. waaw temps moom xale laa woon waaw. mais yow la première fois ngay fekkee wala deuxième fois ngay fekkee Sénégal di euh, dem finale parce que 2002 fekkoon na nga nekk xale. waaw 2002 fekkoon na ma nekk xale quoi. donc actuellement nii ban yëg-yëg ngay am boo sañoon Sénégal jël coupe. waaw kontaan naa non Sénégal moom bi yoon moom ndam rek bi yoon moom incha allah coupe bi day ñëw waa parce que loolu lañ gëm xam nga gars yi xam naa ne ñoo ñu ko gën a bëgg sax gars yi ñoo ñu ko gën a bëgg ñu ngi yàlla may ñu ndam ndam bu sedd guy guy guy guy waaw di waaw wax gars yëpp ñaan xam nga xol yi doon benn xam nga c'est le Sénégal qui gagne c'est le Sénégal qui gagne. merci beaucoup jërëjëfati c'est le Sénégal qui gagne donc voilà euh, euh, toujours ñu ngi fii nii ci koñu Cheikhou koyaate comme ni ma leen ko waxee euh, nga gis xaritam yi nga xam ne ñoo moom ñoo juddoondoo ñoo yaroondoo fii ci koñ bi tey itam ñoo jëmmal li grand ñu ngi lay nuyu tour bi nan lay Ousmane la Ousmane Ousmane xam nga Cheikhou Kouyaté waaw ah, Cheikhou Kouyaté maa nga xam bu baax Cheikhou Kouyaté ñoo defandoo petite catégorie a Yogo ñoo defandoo junior waaw kon su may wax ci Cheikhou damay damay sawar ci wax ci Cheikhou Cheikhou moo ko nekk koo xam ne bi ñuy fubal cadet dañ koy surclassé senior sax mu dem mu dem match ñëw ñëw ne ma suba du ma dem fubali ma ne ko loolu doo dem fubali mu ma non damay crampe ma ne ko loolu ab taw féex la taw féex mënul weesu yow nga nekk ci équipe nekk faak say morom yow kenn ñu tànn la kon donc loolu taw féex la yaa ngi dégg loolu nag moo fay nii tey kon donc tey bu ñu demee ba am Cheikhou Kouyaté ci quartier bi ñun loolu suñu sag suñu ndam la suñu tiitar la man fu ma toll moo koy wax nee na Cheikhou Kouyaté tey moo nekk suñu capitaine ngal la loolu kenn werantewu ko man tey sama bi ma doon nekk capitaine moom la kon donc xam nga ma la kon xaar yàlla lii lii mu am nii jomm ko da ko mérité parce que dañ ko fi taxaw dañ ko fi xaar kon na xamaa ndam li ca kanam ca ca kanam ca kaw te dañ koy séntu bu soobee ki dogal barki maam sa rafal suba kubbi dina ñëw jaajëfati ay ayca mi ngi noonu Doudou ah gars yi en tout cas ñu ngi euh, wax di fësal seen mbégte tam ci li nga xamante ne bi rek mooy Cheikhou Kouyaté ak suba incha allah final bi nga xamante ne bi ñu ngi ko nara a jàkkaarloog ñu ngi daje keneen frère tur bi nan la man ma ma Makumba xam nga Cheikhou Kouyaté si xam naa ko bu baax a baax lan nga ñu mën a wax si moom waaw parce que doomu koñ bi la te aussi am fierté si euh, mu dëkk fii ñu dëkk xaar yàlla am ku mel ne Cheikh loolu fierté la vraiment offerte la aussi ñu xool tamit nu mu ñuy sauver fan yi vraiment nu mu ñuy sauver ak aussi nu mu ñuy mu ñuy nu muy ñaaxee nekk gaynde aussi ba pare du capitaine mel na mooy capitaine parce que dañuy xool bu ñëwee jikkooy gaynde gu si moom mais nag c'est normal parce que doomu xaar yàlla la c'est normal c'est doomu doomu la merci beaucoup frère merci jërëjëfati doomu xaar yàlla yëpp ñu ngi àndandoo ñoom itam ci euh, ginnaaw en tout cas le lion Euh, Cheikh Kayte la ñu euh, Cheikh Kouyaté moom la ñu euh, topp vraiment rien que pour suba incha allah rab bi ñu am ndam ñëpp ñu ngi àndandoo di ko support ñëpp ñu ngi àndandoo vraiment di ko jàppale ñu gis ne sama waa ji moom itam drapeau yi borom drapeau yi ñëwal ah borom drapeau yi ñëwal yow itam def sa ay témoignages ci lion boobu di Cheikh Kouyaté mon frère tur bi la. Amadou Sané. Amadou Sarr Amadou lan nga ñu mën a wax ci Cheikh Kouyaté mi nga xamante ne bi moo waral lii tey biir xaar yàlla. waaw sant sant bu baax rek sant bu baax rek parce que tey booy dégg xar yàlla à cause de Cheikhou moo tax. Mhm. waaw di am sac tamit ci moom quoi te ko ñaanal fépp fu mu bëgg yàlla yóbbu ko fa quoi. Mhm. parce yaa ngi dégg sa gox. donc ñun bi ñu dégg xar yàlla à cause de Cheikhou Kouyaté dañu war a sant suñu borom. dégg naa moom fàttewul ay xaritu dembam. non non non non dëgg yàlla saa bu ñëwee fii dina def ay match daggala ak ay copains ñun moom ci ginnaaw di ko ña daal ñu ko ñaanal daal te daal waaw lii yëpp tamit moom moo tax ñu koy def dund nañ football ñu def dañuy dund football xam nañ football mais tey bu ñuy dégg à cause de Cheikh Kouyaté moo tax booy dégg xar yàlla booy dégg yenn yi yëpp di ko gis à cause de moom moo tax mhm. ñu koy ñaanal daal suñu borom fépp fu mu bëgg a dem rek yàlla na ko yàlla yóbbu. amiin amiin donc waaw su paree tamit yàlla nañ fi déggaat beneen professionnel bu dul moom. d'accord waaw yàlla dañu may ndam daal. amiin tamit ñu leen di ñaax tamit quoi. Mhm. yàgg nañ muñ yàgg nañ jooy mais li ñu yàlla leeral leen ni moom nañ fexe rek seen bakkan quoi. am naa confiance totale parce que xam nañu yoruñu équipe bu yaafus quoi. d'accord waaw li lii moom leer na ba pare quoi ñoom daal nañ jàpp fee ñu ñu jàpp fii ñu xëcc mu bañ a waaw bu dagul day dégg. merci beaucoup benn fan moo ñu desee pour ñu kontaan kontaan boo xam ne at lay continuer. Ah, comme nañu jàpp fee ñu ñu jàpp fii. waaw ñun ñu ngi koy dundee ci terrain bi ñu koy dundee fii ci terrain tamit. jaajëfati mon frère dégg rek. ayca mi ngi noonu mon frère kontaan naa lool donc tey nag euh, euh, xar yàlla la gis nga drapo yaa ngi nii vraiment gis nañu également koñ bi yëpp nu ñu mobiliser woo àndandoo ci euh, ginnaaw ki nga xamante ne bii mooy seen fierté ñoom wax nañu ko. mais aussi joueur la boo xamante ne bii dafa yàgg mbappat lii di football mais fàttewul démb. bu ko yàlla. copain ñu ngi lay ziar tur bi nan la. oui doole ziar tur bi Souleymane la. Souleymane lan nga ñu mën a wax ci Cheikhou Kouyaté. waaw Cheikhou Kouyaté li leen si mën a wax maaw yéen moom dana xam Cheikhou Kouyaté mm-hmm. waa xam ngeen doomu xar yàlla la waaw li ñu si mun a wax maanaam xam nga fii la dëkkoon waaw champion la waaw loolu la ñu si mun a wax actuellement ñu ngi lay gis yow dafa mel ci jaayu moyen bi nga nekk waaw ñu ñoo ngi nii si jaayu mayo bi ah dé booba léegi ñoo ngi daw di jaay mayo di daw di dugaan mayo yi nag xam nga du si ñun lañ ñoo ko seeral quoi fu muy jéngee la fu muy jógee foofu la seeree mais gars yu bëri foon nañ gars yaa si laxas jaan mais bu ñu sañoon ñëppay sol. actuellement moyen bi lu muy jar. mais instant yii ñoo ngi jar ay 15000 ñoo ngi jar mil ah deuxième soirée bi di jar 7000. bilaahi yaa ma doon xam. pare daal ñu ngi gis seen bopp quoi. waaw ñu ngi gis suñu bu baax. di préparer nag di xaar final bi coupe bi ñëw waaw waxuñu final nag coupe la ñu wax. waaw bilaahi walaahi waaw yaa ma doon xam waaye ñun moom fii moom xaaruñu kenn xar yàlla. comme ni ñu ko waxee tur bi rek. ñu nekkee xar nii xaaruñu kenn Sénégal moo ñu ñor drapeau bi vert zone rouge moo ñu ñor waaw xaaruñu si kenn wasalaam gaay ah. jaajëf bi mais ambiance bi fii la doore donc ku xam xaar xam ko asiko ah. Aïcha. On a gagné c'est le 3-0 yu wóor. dañuy ko waaw leer nañ. 3-0 waaw. 3-0. si merci beaucoup jërëjëfati am internaute de Feeling Dakar donc gis ngeen reportage bi ñu leen ameeloon fi nga xamante ne bi mooy xar yàlla di koñu Cheikhou Kouyaté fi nga xamante ne bi fi la juddoo fi la yaroo fi la fekk baax waaye itam fi la jànge football fi la njëkk a footballé nawetaan ba yàlla dogal tey mu nekk équipe nationale di ko toj ñoom itam gis nga ni ñuy waajale suba finaal bi nga xamante ne bi moo nar a dox diggante Sénégal ak Égypte ñoom ñëpp ñu ngi àndandoo di ñaan ndam nee nañu Cheikh fàttewu leen benn yoon ndax mi ngi dugal loxoom ba tey ci xar mi ngi dugal loxoom ci bépp activité boo xamante ne bi ñu ngi koy def ñu leen di jaajëfal di jaajëfal bu baax a baax Duudu sama caméraman bi ma àndaloon ak sama assistant Mouhamed